2016 bi ñu ma attaqué dama leen ne dañ ma doon essayé faagaagal dañ ma doon essayé rey coow li bëri woon na lool waaye man mi nekkoon ci biir oto bi lañ ma sotti ma noyyi ko ak fi ma yóbbu bët gisatul mënatoo noyyi biir di daw ci saasa man xamoon naa naan dañ ma doon bëgg rey man xamoon naa ko léegi nag yónnee nañu ba am analyse analyse yi dikk na te fañ ko yóbbu du laboratoire bu ndaw analyse yi nee na produit bi nga xam ne moom la ñu gis foofu produit la boo xam ne kuñ ko sotti mën nga dee ci sa loolu jeexal na wax ji leneen li ñuy wax yépp waaw fu mu jëlee produit bi est-ce que dañoo def scellé normalement kan moo yóbbu yére beeg nangam amul solo ndax yére ba fa ma nekk ci laboratoire ma nga fa ba léegi saa suñu commencé une procédure judiciaire

nga xam ne bëgg na ma fu bëgg yem ku ma gis may dem aéroport moom ngay gis mu ne sama gànnaaw ku ma gis may daw léeg moom ngay gis sax ci kaw mu yor drapeau bi Abdou Karim Diop dem jàpp kooku naan moom moo doon essayé rey waa ji moom moom moo gën a yomb ci rey ma que ki mu jàpp kon bi mbir mi di am heureusement filmé nañu vidéo yaa ngi fi ñu téye biir oto bi man maa fa woon gi Marius Sagna Zak euh, mi doon dawal ak ndatu ndatu mbooj mi newoon ci gannaaw maître Clédor Ciré Ly benn instant la ñëw di ubbi pour xëcc mu tombeek soo génnee ñooñu ñi waroon oto bi yëpp alkaati yi la boobu dàq nañ ñëpp ba ñu sori vidéo yaa ngi fi te produit bi tam nee nañu produit bi lu alkaati yi di utiliser lu ci ëpp dañ koy utiliser pour xeex ak nit kon kay loolu na produit boobu soo demoon ci marché yi ko fi am soo ko commandé woon lay jël si ñoom rek ko mun yor kon ma wax ni maa ngi ni ma doon essayer faagaagal te liñ ci war def ñu koy def ndax avocat yi nañu document commencer liggéey déposer fi déposer.